الخلق لما سبق الناس للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآله حق قدره ومقداره العظيم ولو ترى إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر لهم رسول وجد الله توابا رحما ربنا لا تجعل في قلوبنا عدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Moussa Tidiane di ko souhaité sa anniversaire di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko at yu bëri bëri bëri yal na ko yàlla may atuma yu bëri dolli ko ci di barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ziare waa xadra bi yëpp xadra Cheikh Tidiane bi nga xam ne tey ñoo fi teew fii ñun ñëpp tey benn sëriñ la ñu am mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala te moom la ñu am tey moom la ñu am suba moom la ñu am gannaaw suba ba foofu nag. salaatul faatiha wàccul ci kenn ci Cheikh Sidi Hadji Malick si wàccul Sidi Hadji Malick si wàccul ci Baye Niass wàccul ci kenn ci Moukhaddamou Cheikh Tidiane waaye ci Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane la wàcc. Jawharatul Kamal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane la ko jox. Bàkkaar bu gën a mag nag te yàlla dañu ko wax ne dañ koy ñaan sax yàlla musal ñu ko. rabbana la tajal bi qulubina illan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim yàlla yàlla boo ñu nattoo ñu am benn mbañeel ñeel kenn ku gëm yàlla parce que alquran dafa ne allazina amanu wa lam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu ulaika humul muhtadun rek ma commencé teg ba teg hujjatuna aataynaa Ibrahima ba ci ba ci suuf mu ne fa bi hudahum muhtadin ñi nga xam ne seen ngëm yàlla amul benn lënd lënd benn lëndëm lëndëm ci bokkaale ñu ne ñoo nekk en sécurité te ñoo ñoo nekk ci yoon siraatal mustaqim yàlla incha allah teg lii modèle bu rafet la da àndoo ci bennoo nekk benn ñun di nga xam ne war mooy rafet kurus jekk yére yaay ne woon ngay a dit toujours que ñun mooy benn lañ mm-hmm. benn gën a du wax Mm-hmm. mooy buñ gis sa morom rek dañ ko bëgg. Mm-hmm. soo dégloo xasida Xaaj Maalik da ngay kontaan parce que jeune may tàkk man bu maamoo. Mm-hmm. soo dégloo yi bàyyi ñes yi Cheikh lay woy soo déggee képp ko fii moo ko dem Cheikh Tidiane rek Cheikh Tidiane la ñu woy. est-ce que ñun Cheikh Tidiane kenn na ko moom ñun ñëpp a ko bokk. kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna ñun ñëpp may nañu teraanga ginnaaw wala akramnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at wa faddalnaa alaa kasirin maa xalaqnaa tafdiilaa lépp lu yàlla bind doomu aadama moo ci gën te yàlla moo ko teral mi koy war doomu aadama bu juddoo ba muy dee dañ koy dañ koy dañ koy teral di ko yëkkati te moo ñu gën a la ci lépp lu yàlla bind defaluñ ko kenn defaluñ ko dara yàlla moo ñu tànn rek ñu fi nekk ay nit dañu war a sant yàlla ci liñ nekk nit d'abord ñu santaat yàlla ci kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billahi ñu sant yàlla ba ñu yàlla mayee ñu bokk ci xeetu Seydina Muhammad nga xam ne bi akrami rusuli kunna akramal umami am gi ñu am teraange gi ñu am bokk ci xeetu yoon ci yàlla Muhammad saa salaam moo ñu may ñun ñëpp ñu nekk ci xeet bi gën ci xeet bi kon war nañ sant yàlla ci liñ bokk ci ummatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu am chance yàlla digoon ñu ci la wen yoon ci yàlla Muhammad ak xulafaa yi ak wali yu mag yu bëri ñu ne xaatimul wilayatul Muhammad dina fee jox xaar bu fukk ak ñaar te ba xam fukk ak ñaar ñu tey kenn moo ci oote mi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci radiyallahu taala ne moom mooy xaatimil wilaayatil muhammadiyya tey yéen ñëpp ko ko nangul ñi ko doon sikki sànq ñëpp xam ne tey Cheikh Tidiane mooy xaatimil wilaayatil muhammadiyya ñëpp ko nangul ba amul woon taal bi lu dul Aji Malick Si amul woon taal bi lu dul Baye Niass amul woon taal bi lu dul ñoom Aliou Alhaj ñooy Ibrahima Rayaxi moom Cheikh Tidiane doy na am na ndaw parce que amul ci àddina bi lu toll lu mel noonu ñu mel noonu ku leen am comme taalibe mm-hmm. amul mm-hmm. ku ko am rek nañu ko wan mm-hmm. ñu mel ni Aji Malick Si liggéeyam yëpp mooy na am ngërmaande Cheikh Tidiane Baye Niass noonu keneen noonu ñëpp ñu xam ni ñu nangee ñëpp loolu la ñu wut comme nag alxuraan li ñuy digal toujours ñun alxuraan mooy référence parce que Cheikh Tidiane li wax isa sematam ané cheen basira misane bu ngeen déggee man jiw tey moo wax dara nañ ko peese ci balance charia bu ci dëppoo ci leen ba maa tegu wala góor ba ba maa laaj ko am lu bon lu mu leen a jël leen jël leen lu mel leen bàyyi leen bàyyi moom tam mën bu ñu ko fa bu ñu ko fekk rek nañ ko sànni même bu fekkee sax moom jiwu tey li mu yokkoon dëppoo wutal loolu nañ topp li ci alxuraan nag mais moom ku lu unaasin xat mm-hmm. xam nga sa naanukaay mm-hmm. est-ce que naan fii ba pare ñun ñëpp nañ nekk benn man appel boobu laay def toujours ci kanamu Chérif parce que ñun tey li ñu gëm tey ñun benn sëriñ lañ am tey mooy Chérif Hamza ñun ñëpp dañ ñëw ziare Chérif Hamza ñu ñëw jéggalu si parce que ziare gi wala taa yi sala maanaam sax ba moom bi mooy bootu ziare bi ñuy def te lépp mandarga bi moom tey mëtee na ko kon bëgg ñu jël ko ñun ñëpp comme war naa ko dama koy waxaat nañ ko jël roy kaay xadara bi yëpp tarixa bi moom xamewul kenn day ñëw fii ba daaja bu fu nekk ngay gis Chérif Hamza dem pour rek Tijaan yi multiplier wan leen affaire bi nii la parce que ñun ñoo nekk ci yoon bi mhm. ba ñu yàlla di ihdina siraatal mustaqim yàlla yàlla nañu teg yoonu siraatal mustaqim ñu koy wax 17 fois par jour ci julli farata yi li mu ci teg rek mooy siraatal lazina an'amta alayhim te ñun wóor nañu ne allazina an'amta alayhim mina nabiyyiina wa siddiqiina shuhadaa'i si la bokk wa saalihiina shuhadaa'i bi la bokk si la bokk ñooñu ñëpp bu ñu amee chance ñu am royukaay mel ne Cheikh mhm. dañu war a góorgóorlu ñun ñëpp ñu war a mel ni Cheikh meloon mhm. parce que taalibe mooy seetu sëriñam. Mm-hmm. yooyu di waxoon mu ne al muslimu min min atu aqiyi wala al mu'minu min atu aqiyi jullit mooy seetu mooy seetu moromam kon ñun tam ñun Tijaani war nañ nekk benn ñu bëggante. Mm-hmm. salaatul faate bi ni ñu ko waxee ñun ñëpp ñoo ko bokk. yow te gabaar bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. nañ delluwaat ci suñ kuréel yi nañ delluwaat ci bëgg suñ sëriñ yi nañ delluwaat ci liggéeyal sëriñ bi liggéeyal xadra bi loolu mooy suñ kàddu gi wax.